muy xibaar bu ñu dab léegi-lee Safia Diatta bokk ci présentatrice yi gën a foofu la ci D-Media Sen TV doon présenté émission bi nga xam ne ñu bari dañ koy faral di bàyyi xel foofu la ci Sen TV muy gis-gis te mu daan partagé boobule plateau ak per Père Mbaye Mangone moom Safia Diatta nag daal di nay quitté groupe D-Media bu ñu sukkandikoo rek ci suñu naataangoo ya fare ci Seneweb ñoo jot a fësal bile information li waral mu quitté fa nag ginnaaw bi nga xamee ne Cheikh Sarr quitté na fa yàggul dara loolee ba tey kenn xamee su ko ñun waa VIP people itam yëkkati nañu suñu téléphone jéem a jokkoo ak safiya Diatta ngir xam ba xam dëgg laam dafa déposé ab démission foofule ca groupe des médias ak itam lan moo ko puus ba mu daal di bàyyi boobu lépp groupe bu Bougane Gueye Dany ak itam lu ko metti ndax dëgg la déet ak lu ci mën a xew itam jotuñu ko jot ci téléphone waaye terewul daal dëggal nañu ne ci ay nitam yu ko jege ne safiya moom jamono jile jeexal na foofu foofule ci group de médias waaye nag li waral mu jóge fa ba tey kenn xamee su ko ñun VIP people nag danañu gëstu ba daal di xam ana lan mooy cause bi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 téléchargez l'application sur Apple Store ou Play Store avec TapTapSend, tout est révolu.